ne ñoo daal di yàkkule gannaaw lakk-lakk bu am ca marché jàng bu Pikine ñoom nag ñu ngi sollicité ay ndimbal ni mu gën a gaawee. man naa ne depuis lakk bi mu amee ba léegi am na ñoo xam te ni seen kër joxe wuñ fa dépense ñi si des commercant yi ñu ci bëri xaalis banque la ñuy leb ñii aussi tamit ay fournisseurs ñoo leen jox seen i bagages kon je pense que ñoom mënuñu xaar lépp lu ministre bi mën a def mooy mu defal ñu ko daar daar nu mu mën a gaawee pour ñu mën a delloowaat suñuy liggéey.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 lakk-lakk yi ca marché yi mu ngi gën di bari lu nu mel nag mu ngi jur ay dégâts yu bari